te booy yi nga xamante ni ñoo yab oto yi dëkkuñu Tiwaawan ci village environ yi lañ jóge ñëw fii di yab boo waxee ñu lay jaay reewande ay boo yoo xam ne ay illettrés lañu xamuñu lan mooy pandémie xamuñu lan mooy gravité feebar bi li war a am mooy ñun population bi ñun ñi nga xam ay jeunes lañu ñun ñëpp nañu taxaw ñu jàppale presse bi jàppale ñëpp luñ ci gis loo xam anormal na ñu woote wax leen ko te autorités yi tamit ñu dimbali ñu ba ñu leen ko waxee ñu ñëw Euh, jéem a jàpp ci loolu parce que am na de nit ñaa ngi yàpp fii ci Carrefour bi ñun du matin au soir ngi fii ci Carrefour bi mais ñin ñaa ngi yàpp ñi ngi dem Thiès ñi ngi dem fu leen neex ñi ngi dem léegi nag li ci am mooy autorités yi nañu ñëw parce que l'heure est grave l'heure est grave. lu doy waar non ñun mënuñu woote ñun li ñu man mooy taxaw wax ak ñoom booy jëm leen indil xel ni leen booy li ngeen di def nii baaxul lii bu leen ko def mais bu fekkee autorités yi ñoom it ubbi nañu seen bunt ubbi seen téléphone pour bu ñu gisee loolu ñu woo leen ñu gis leen woo leen. loolu du dara lu baax la dañ leen di woo loolu parce que heure bi tout le monde est policier tout le monde est policier ko lépp lu nga xam ne nii day lor askan boo nekk ci dëkk bi boo ko gisee da nga ko war a wax. te ñun dinañ ko wax bu fekkee ne ñoom d'accord nañ pour ku gis kaa woo leen gars yi buñ gisee kaa woo leen du dara loolu du dara non ñu ngi fi dañuy nëbatu ci ruq yi la ñuy dugg du question da ngeen di ñëw Carrefour pour gis leen da ngeen di dugg ci ruq-ruqaan yi wër Carrefour ay côté Sonatel bi di ñëw côté élevage bi fii fi ñuy vacciné fas yeeg yooyu ñi ngi fii ñi ngi yàpp mënoo loo leen dara ñi ngi fi de na gars yi def en civil làqatu ci atelier yi làqatu ci coin yi dinañ leen gis ñuy yàpp ñu jàpp leen loolu la. ndax gisoo ni jakarta yi tamit ci lañ bokkaale. non jakarta yi parce que booy jakarta yi ay illettrés la jànguñu xamuñu dara ils n'ont rien compris day ñëw yab nit pour ñoom takk nga masque du lool da ngay yab kii mu toog keneen ñëw jakarta yi préfet dafa war a jël arrêté arrêté leen. parce que actuellement nii amul jakarta amul oto économie bi ñëpp rek ñoo gaañu ñëp la seen économie wàcc jakarta nañ leen arrêté pour un moment donné. le préfet mi fi fii na jël li nga xamanteni ay arrêté la mu arrêté lolu Jakarta dañ leen wara a arrêté d'urgence sax warul xaar avant 15 heures tay war nañ leen arrêté d'urgence la loolu. ñëpp a koy yëg ñu koy yëg mais dégo lima la wax ñoo duñu ay nit yu conscient ñu école xamuñu gravité pandémie autorité yi bu ñu déglu ñooñu nañ jël seen mesures parce que ñom ñoo nek fi pour protéger la population nañ génn protéger la population il est l'heure amutul len luñuy xaar. léegi non man lima gis dal moy police di def patrouille ñew tas groupe yi buñu fi ramasser 5 3 6 kenn dootul genn mu jeex na police génn commencé def patrouille di rafal. 10 personnes yu gis neen yeen lu ngeen di taxaw lu ngeen di réglé amoo tas len mais buñ ci jappé ñaar ñett déféré légui lolu jeex. tey jii nii tey jii nii gis nga ko yëpp tey jii. non gaay yaa ngi nga na ma tay légui ben client ngi taxaw fi di yëpp di yóbbu ay kees fii ci côté ray bi di yëpp dañ tere leen wàllum dem beeg dikk bi tere nañ leen ko te ñun mënul xam nga tamit ñun yoruñu yenn doole yoo xam mën nañ ñëw xeex ak ñoom wala ñu wax leen li ñu man mooy sensibiliser leen mais bu ñu bañee autorité yi nga xam ni ñoom ils sont là pour ñëw dal seen kaw nañ gën dal seen kaw li daal patriote koy faj bu gaaw ci carrefour bi dix personnes yu ngeen taxaw laaj leen ak gis yor saak ñu loo looy xaar nga oto ñu xam ne ki oto Thiès la ñu koy xool bu duggee ci oto ñoo jàpp ko borom oto bi fay loo ko loolu raw gaaw. nag ñu ngi nii ñu taxawal sëñ bi ñoo ngi lay nii ñoo ngi lay fay soxna si. ñu gis ni yéen chauffeur yi da ngeen di jëlee euh, ñii di clients yi di yóbbu cees jëlee ñii di clients yi di yóbbu Touba. waaw loolu ba tey dañu ciy sawar pour tont ci parce que am nañu yaakaar ne actuellement transport bi depuis bi jàngoro ji ñi ciy daw Thiès Tivaouane ñun bariwul boo xoolee Tivaouane oto yi fi nekk souvent location moom mooy gën a fës ci seen wàllu liggéey mais Thiès Tivaouane moom boo ko déggee rek xamal ne chauffeuru Thiès la wala muy quelque ñi nga xamante ni chauffeuru Tivaouane la mais bariwul ci ñun. mais li ñu nemmeeku ku bëgg a dem Thiès boo ñëwee fii nii ci Carrefour da dem Thiès. waaw pass bi am na fi oto yi dafay am tam de temps en temps. lan moo tax yéen dénoncé woo leen ñooñu. parce que dama dama la wax sànq sama biir wax nee naa la injustice ci réew mi ñu toll nii. kenn mënatu ko dénoncé. non loolu man du ma ko def ndax xam nga moo tax du ma def am na ci ñoo xamante ni tey ji bu ma leen signalé woon te nekk ci di ko def bu ma woon sama kaso day leer xanaa dégg wax bi dama ne la ñuy sol seeni i tenue laa la wax di def transport ñu ngi ci réew mi actuellement te ñu ngi romb seen ay naataango wala seen ay nawle ñu koy gis te waxuñoo ak ñoom dara. kon yéen cas communautaire bi biñ ne ko fi dëggal dëkk fi yéen en tant que ay chauffeur ban taxawaay ngeen war a amee. taxawaay bi nu ame mooy ba tey delluwaat ci li nekkoon rek mooy gën a gën a gëm ne mbir mi yàllaa ko fi indi te buñ ko nee def suñu transport muy dëgër bopp gi lépp lu nga xamante ni lu ci loraange la suñu kaw la jëm si kon duñ def lu dul ànd ak décision bi nga xamante ne ni moom la président jël ak gouvernement bi ñu jéem a mën a wat suñu kaaraange ngir yàlla dimbali ñu ci jàngoro bi mu jóge fi ngeen daan doxalee biir dëkk bi rek ngeen daw mënatuñ ci daw parce que clando boo ko bëggee def tamit day fekk activités yi di dox mais bu fekkee ñu ne activités yi taxaw na ci gaaru ceer yi taxaw ci marché yi wala yenn euh, lieu public yi kon clando mënatul dox fi mu toll nii yàlla rek moo fi des daal waaw mais liggéey amatul wax dëgg yàlla merci beaucoup jërë ngeen